Tapha Tine ngi noonu ci oto bi ci porte bi supporter duggee la woon duggee mais gars yi ne nañ ko na ñëw beneen porte ba gis ngeen mooy noonu ànd ak waa Bawol gépp maa ngi seen ñoom ay Tapha Leer Tonnerre 2 Ndiaye xale Bawol gépp a ngi noonu ci ginnaawam ah ñoom carrière mbay guy gi ah xale yëpp a ngi noonu ànd ak moom moo ngi baax Tapha Tine ngi noonu am na lu mu ñaan ba tufli ko ca kanam ga moo jàkkaarloog booy ñaa boom culuxu culuxu <laughs> cey làmb làmb daal ngi noonu Tapha Tine a ngi noonu di wàcc Tapha ngi noonu wàcc na boom saa am na Tapha ngoog am na lu mu ñaan ba tufli ko ca kanam nga Tapha Tine noonu sama supporter asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew ci stade bi tey di leen jéeglu di leen wax mos a coono di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu képp kuy fan si Tapha Tine ak képp ku teew ci stade bi ak ku fi teewul maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy Bawol Bawol. ak képp ku di njàmbur njàmbur wala saalum saalum wala kajoor kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm sama mbokk xalpulaar yi soose maninke manjaago ak joolaay ak suñu mbokki chrétiens yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di noyu senegal yëpp di ñaan jàmm si dëkk bi yal na dëkk bi stable mu bañ a am benn histoire waaw bu loolu weesoo ku ne xam na ne ci bés la ñu jëm ñun ñëpp waaw kay te yaakaar naa ku ne xam na ne bés bu ñu jëm muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk lamb ju mag joo xam ne bu dàqul ci saison bi mën naa ne deuxième lay jël yàlla nay lamb ji fi dàq te yàlla may ñu ci ndam amiin amiin du noonu bu loolu weesoo nag maa ngi ñaawlu aussi li nga xam ne moo xew passé stade muy diggante Papa ak Siteu di ko ñaawlu man am na vidéo yooyu duma ko seetaan parce que man daraay violence du ma ci dox Tapha Tine ko xam mën naa ne def naa 16 17 ans de carrière kenn mësul dégg ñu ne kaa leen atte Tapha Tine fii samay supporters man mën naa ne noonu lañ mel ak ñi bokk yàlla ak ñi bokk ak ñi bokk te yàlla tax noonu lañ mel man loolaa gis ci ñoom comprendre ngeen kon nag ñu ngi ñaawlu li xew te xam nga ñi koy def bu fekkee ay nit ñu ànd ak seen sago nañu ko bàyyi quoi parce que du image bu rafet déjà ku wax nawetaan da ngay wax làmb te actuellement nawetaan bi tej nañu ko. te lii xew nii buy ñaar di ñett ci ñun la jëm si. te bu jëmee ci ñu rek du baax parce que làmb ji li ci yaakaar dafa bëri. ñun mën nañu xëj na ñooy grand yi mais tam il faut ñuy sooraale suñu xale yi nekk suñu ginnaaw. waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant sama mbokki lutteurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal tund Bawol yëpp. tey ku ne gis na booy tey ñoom ñëpp teew nañ fii comme na ma koy waxee ku ma ci lim rek yaa problème. ñoom ñëpp attends may ma rek ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom Moussa Dioum laa ciy cité teg noyoo ci loxo mu tegal ma ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maay sant waa Medina aussi. waa Fass Gueule Tapée Colobane Médina Rebeuss Niacoker ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk. ak Dakar Plateau bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall di nekk fii di ko nuyoo à waaw bu loolu weesoo aussi di sant aussi sama président écrit ñu koy wax Fallou fay nga xam ne sànq li mooy jël kaddu léegi ak Pape Thiam Pape Thiam suma xarit. ñoom ñëpp nekk ci politicien ak Bada Bada ñi ñoom maire Djib Thiaw xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Amet Dieye xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom Daouda Tine xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di yaakaar naa précis falu fay message bi jàllale na ko maître Pape seen aussi maa ngi koy nuyu waroon na ñëw fii teew bu ndondol mais yaakaar naa yónnee na fi délégation quoi ñoom ñëpp nga koy nuyu. di nuyu aussi Moustapha Cissé loo sama turando El Pistoro Lo maa ngi koy nuyu aussi ku may jàppale la wax dëgg yàlla. ñoom siñoor Lo ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi. xam nga ak ñoom madam Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi. bu loolu weesoo aussi di nuyu suma asan papa Thioune ak Elas nga xam ne tout le temps ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine di liggéey ak moom. waaw di santaat yàlla bu baax. di gërëm waajur yi xam nga di nuyu monde lamb yëpp. di leen wax bismillahi rahmaani rahim. kay acca kon ñu dem ci question yi. waaw léegi Tafa. tey dañu gis tey dañu gis nga am combat. nga woo tundu bawal gépp woo say mbokk woo ba woo responsable politique yi. ñu gis ni da ngaa ba woo responsable politique yi. bés moo nu toll. wala adversaire bi ngay dajeel moo toll noonu. xam nga bés bés dañ koy fonk te man dama fonk bés te bés yu mel nii boo ciy dem dangay ngay ànd ak say mbokk yëpp xere la quoi doo bàyyi benn nganaay te man lam ji mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade bii laa bëre woon sama premier grand combat su may deuxième combat ak yëpp fii laa ko defee te lam ji mel na ni kuy doog a dóor te boo yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara te balaa ngeen cee xam dara ñu egg ci bés bi incha allahu rabi yee. dafay day. ayca waa Tapha Tine. léegi ñu gis ni bëri na ay combat yoo xamante ni bëri nga ko combat jàng. bëri fi ay combat yoo xamante ni sénégalais yi yëpp nangu nañ ni tu es champion. waaye tey ndax xale bi ngay dajeel tey ndax xam nga ko xale bi ngay dajeel amateur yëpp nangu nañ ni xale bi ngay dajeel xeexkat la bërikat la. est-ce que yaa ngi suuraale loolu. non nothing talking about aw ma dara dara dara lu ma koy wax. I am working night day maa ngi liggéey anytime aw ma lu may tiit you know big man yi nekk ci lam ji man tafaatin maa leen daan kon aw ma benn benn combat bu may jaaxal aw ma dara lu ma koy wax du noonu adversaire la nag liggéey na boo yàlla may ko muy dajeeg tafaatin bu bés ba laay xaar incha rabi aw ma lu ma koy wax. est-ce que yaa xalaat. xeex bi ci Boy Niang ndax Tapha xale bi ngay dajeel yow leer na la xale bu ndaw la bokkul ak ñi nga daan dajeel ci ak li amateur yi wax dañ ne Boy Niang numéro 2 mi ngi doog am combat ci ay combat waaye Tapha tamit mi ngi doog a am combat est-ce que loolu yaa koy yaa ngi xel bu baax a baax. waaw même question ñëw rek. Uh-huh. loolu wax sànq. ma ne la aw ma dara. Hmm. aw ma dara lu ma koy wax quoi. combat la moom xam na ne am naa combat daf ko signé ma signé ko. man tam xam na ne am naa combat maa ngi pare mu ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bes baax la ñu koy wone incha allahu rabi amul leneen. loolu la quoi seen combat dina am xeex yéen ñaar. non bëre door dañu wax tey bëre simple bi yaa tout boo demee ci àll bi wala nga dem Grand Yoff yomb na ko comprendre nga may nañu ñuy def bëre simple yëpp su may gaañ lañ xamoon mais lii door la wax ko bëre kon xeex. xeex nga fas yéene indi sa adversaire exemple doo bàyyi dara da ngay bëre di xeex quoi loolu la amul leneen. da ngay bëre di xeex mën nga ñu wax naka nga préparé combat bi est-ce ni nga doon préparé yeneen combat la. mooy li ma la wax sànq dama mel ni kuy doog a bëre. lan moo waral loolu. ma fonk combat bi bousee wu ma fenn lépp fii laa ko liggéey lépp lu ma am Sénégal ci place yi laa ko amee ci salle yi nekk Sénégal laa ko ame quoi amee ko feneen. sa adversaire mu mel ni combat bi da koo fonk lool ndax jóge na fi dem ba bitim réew. waaw préparer combat ci ni mu waree yow nga ne fii nga toog di préparer combat waaw Sénégal Sénégal tu tout ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy pare combat kon xam naa nu ñuy pare combat nu ñuy pare combat moom kenn dootu ko wax tafaatin comprendre nga euh, yàggatul daal. dafa combat bi dafa mel da ko oyofal nag. mooy li ma la wax déggoo li ma la xanaa yow déggoo ma ba léegi de. ak ma laa dégg. mel ni kuy doog première combat ni ko fonke woon bii moo raw. exactly. léegi yaa ngi jà yaa ngi jàkkaarloog réew mi yaa ngi jàkkaarloog Boy Niang numéro 2 man leer na ma ni mi ngi seetaan lan nga koy wax. dama la lak anglais léegi yow xam naa déggoo ma ba léegi quoi. ak ma laa dégg ndax exactly aw ma. ak ma laa dégg ndax des the language the most speak in aw ma aw ma dara aw ma dara lu ma koy wax. aw ma dara lu ma koy wax. adversaire la bu ma respecté nag. parce que xam naa ne champion la moom. ku ma la mais le jour si laay xaar quoi incha allah ma ñëw def différence rek dem su ma yoon. non dañu bëggoon nga wax Boy Niang lan nga koy indi ne ko préparé la. non aw ma aw ma aw ma dara lu ma koy expliqué. yee. ah kon yóbbante ko dara. aw ma dara lu ma koy yóbbante. xale bi bul fàtte ne day jàkkaarloo yow de te am na lu ma la wax waaw waaw na arbitre bi sànni bantu 30 rek jóge foofu. loolu rek laa amoon lu may wax quoi. li ma waxoon du ma ci dellu ginnaaw bu ma ko nee puusal dafa war a puus. dat clear ah. bu ma ko ne puusal dafa war a puus loolu moo jaadu. est-ce que xam nga ni xale bi ñi mu bëreel ñëpp da leen yóbbu latéral defal leen affaire. waaw mais loolu baax loolu moo baax loolu affaire am la quoi man suma affaire mooy ñëw taxaw liggéey li ma war a won ko li ma liggéey. is nothing jéem na quoi. léegi lan ngay wax réew mi ak ñi lay seetaan. waaw di sant yàlla rek di ñaan ci réew mi ak dal quoi. di waxaat aussi li ñuy xew gis ci stade yi nañ ko moytu. di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. looloo fi nekk bu loolu weesoo maa yi sant képp ku fi teew ah. képp ku fi teew maa ngi lay sant di la gërëm aussi di santaat aussi Fallou fay maître Pape bi taxaw ñoom Bamba Fall ak ñëpp ñoom Messi xam nga ñoom Mor Ngom xam nga ñoom ñëpp Diop Sia ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm. léegi Modou Anta dafa am question bu mu la bëgg a posé. ñu bàyyi la nga mu posé la ko après ñu la ko. maa dañu gis na yàgg ngaa dugg Pikine bëre fa ñoom Malaw Seras bëre fa ki nga xam mooy Gaynde bëre fa ak boobu aussi tamit say supporters bokk na ci loo xam ne bàyyi nañ ko seen xel nga fay duggaat jëlaat beneen xale muy Boy Niang numéro 2 est-ce que xam nga day wa combat bi te aussi tamit pare nga pour rectifier wu tàggoog say supporters mooy li ma la wax sànq moo du combat bi li mu ma jaral yéen mënu ngeen koo xam xam nga du ngeen ma gis yu bëri quoi dama nekk sama roq di liggéey jàpp suma njàmm parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi liggéey incha allahu rabbi te bu ñu demee ca bés ba incha allahu rabbi yàlla dina ma may ndam man loolu laa yalla yàlla quoi. yooyu. Eh, Abou Ndour Abou Ndour mi ngi nii moom moom ah. mu ne wàññi poids non yéen loolu ngeen gis quoi mais man gisuma loolu man moom damay liggéey topp su may ay entraînement rek quoi. léegi ñu bàyyi la nga wax ak sénégalais wax ak lu lamb. waaw waaw waaw di sant yàlla comme niñ koy waxee daal xam nga di sant képp fi teew di sant mëndu lamb ñëpp waaw Sa Kandé alias Tax Kirip loolu dafa leer. barki yonent bi. Euh, lu indi sàkkande bi. waaw loolu sama géem la sama yëfi bopp la buñ cee yëgee dinaa leen ko expliquer incha allah. waxal ak réew wax ak say supporters. waaw. Ousseyn Wassare mu ne booy ñëw ku ko xam xam ne day jëli mbër. danaa coppe sa tànk laxasu sa ndigg bari na adversaire yu mu ko def daan leen est ce que yaa ngi xaar loolu sa diggante moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa ndigg la cay xew. waaw man li ma liggéey laa gem ko du noon li ma liggéey laa gëm moom la mu liggéey moom la engagé quoi mais man li may liggéey laa gëm ko bu ñëwee xeex ak yow xeex samp jaaga xeex ak yow. bëre dóor la ñu wax. Tapha Tine kenn du ko wax ci xeex wala boog leneen ko leneen ngay wax. sa diggante ak Ama Baldé noonu la demee est-ce booy ñàkk ñëw jël sa tànk bi rek yow. waaw mais mooy li ma leen wax yéen du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer combat xam naa nu ñuy paree combat du dégg. la weesu nag weesu na ko man li suma kanam laay xool nu mu ko lijjantee nu mu gën a gaawee. ñu baal la nga bés ba jot ma def différence dem suma yoon loolu la ko amul leneen. ñu baal waaw di sant waa Bawol yëpp. ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii. maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp. di rafetlu seen teewaay ñoom ñëpp. tafaati nag équipe lañ équipe ñooy liggéey ak ñoom. tey bu ma fi woon di lim ay tour day compliqué. comprendre nga li firndeel na ko tey ñoom Pape Thiam xam nga ñu ngi ñëw teew ñoom Fallou fay suma président écrit mun naa ne Bawol gépp a fi teew quoi kon loolu sant yàlla la quoi te bu bees ba di ngeen gis lu garaaw incha allah mobilisation mobilisation waaw foofu moo baax. foofu moo baax. à moom laa leen wax moom laa leen wax ma ne leen man sama fan si club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine du ñu jël car du ñu jël sept place dañuy dox dem ko ah. waaw waaw waaw. la nga woote. waaw waaw waaw bu loolu weesoo nag di sant sama mbokki promoteurs yi ñoom jéey seen xam nga yi ne ci làmb ji ñoom Daouda xam nga di sant aussi Daouda automobile sama copain maa ngi koy gërëm wax dëgg yàlla. ak ñoom Tafatine bu kër Ndiayloo ñëpp ñu ngi tey ci stade bi mais dañoo laqatu ñoom Thioune Papa Thioune hélas ñoom ñëpp. xam nga waaw ñoom Bamba ñoom di sant aussi suma fan si club bi Ilimane jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu tegal ma ko ci waa group yëpp kon loolu leer na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal en tout cas.